su ma nee leen ni góoru sénégalais yu sonn nañu sonn nañu trop te amuñu kenn ku leen défendre ma bëgg na ngeen bàyyeeti ma nopp dafa am moodu muudu bu nekk fële ci bitim réew di labat ab xale boo xam ne fii ci Sénégal la ne bañalu ko dara nag fayal na ko jàng lépp lu mu soxla mi ngi koy defal papa mu utal ko taxi yaayam mu utal ko butik ay frère am ak ay sœuram ñu ci war a jàng mu dugal leen ci école yu baax metti leen à l'aise mu dem ba ci biir ne dafa bëgg jabar ñu may ko jabar mu jël jabaram yóbbu ci wetam foofu nag la coom coono ga tàmbalee naka la ko teg ci wetam bu xëyee liggéeyi ndaw si dem uti ay xarit di ànd ak ñoom di taxawaaloog ñoom ba waa ji war a wàcc ñëw ne ko an sama añ mu ne ko togguma añ lu tax togguma añ lu tax toggoo mu ne ko togguma añ nax man duma sa jaam soo bëggee añ dangay dem toggi bu yére yi tilimee mu ne ko dangay uti machine duma la fóotal ah bu jëkkër ji demaat liggéeyi encore ñëw bett ko muy def appel vidéo ak tubaab bu góor bi mu ne ko yow ki ngay waxal kan la mu ko sama copain la jëkkër ji di wax mu ëpp ko làmmiñ tàcc ko yuuxu ko ñu ni déeta waaye nag mu woo police ba police dikkee ndaw si ëpp ko làmmiñ ñu jël waaj a génne kër ga jël bien bi waaj ji amoon lépp jox ko xale bu jigéen bi waaj ji nag ña doon liggéeya ndool ñoo ko mujjee héberger ba tubay sax am ko bu mu sol ñu jël ko fexe ba jëndal ko billet mu ñibbi waat Sénégal bi mu ñibbee Sénégal mu dellu ca kër ndaw sax toog ak famille ndaw si wax leen li ko metti papa ja nag àndul benn yoon ci wax ji ba ay frère ak sœur am kenn àndu ci kenn kenn àndu ci waaye yaayam yaayam a ci ànd ak moom doon complice am ndax lan dërëmu àdduna ndax lan xaalis ay jigéen xaalis a tax amuñu ngor alal a tax amuñu ngor waa lii moom baa jàmm la